Baye Ndiaye di sa xarit. waaw suñu xarit la sa doomu ndey la bu baax a baax. baaw xoolal euh, bala xoolal ñi ndax di nga leen xàmmee. yàggoon rek bu yàgg sax ay 2005 la yaakaar naa boobu dañu ànd mu war a bëri mbapat stade Assane Diouf bi mu bëri ak Tapha Tine mbapat loolu loolu ñu ànd mu ñëw sama kër na war a bëgg yu ma benn mbapat dafa am Dakar ma ne ko fan la ci Dakar mu ne ma stade Assane Diouf boobu xamul sax Assane Diouf. ko ah ok bi nga bëgg a dem mën ma waaw mën ko dañ dem ma génn taal sama oto ànd ak sama benn frère bu ñuy wax Ahmed 2005 ak Baye Ma Ndiaye dañu ànd lool ñun ñett coono bi ñu dem ba Assane Diouf mu yóbbu ko bi ma ñëwee Assane Diouf ñu wàcc fekk mbappan ma famoon Medzo moo ko tëggul bi ñu toogee mu ñëw wàcc rek foo wàcc rek ni day day day saw quoi mu dem saw ma yëg ci tribune bi toog maa ngi fekk benn mbër sax <laughs> benn mbër. mu ne ma yow sa booy da nga jéem a force di ko jëlee gars yi indi fii doo ko bàyyi fi bëree dina waay commencé wax ma ne ko non bàyyi leen jàmbur ah mu bindu ma bind ko ñu bind mu bëre dajeeg Tapha Tine demi final bëreeg moom lu mat 45000 kenn daanu ko après ci dernière minute la ko daan daan Tapha Tine bi dajeeg Alioune Seye numéro 2 final boobu muy gañe benn télé ci bëgg mbokk laa lay waxal moom quoi mu gañe benn télé. télé bi su ma dañ ko yàpp mu ànd ak moom bi ñu ñibbi si fekk Père Balla fekk nañ ko foofu mu ànd ak ñun toog ci kanam après ñu toog ci ginnaaw bi ñu ñëwee Pikine ma wàcce per Balla ma ne ko léegi Omar télé bi koy def du ma ko yóbbu ko noo du ma ko yóbbu Kër Massar sama yaay nga xam ne tey li mu njëkk a tele télé mënoon na ko yóbbu seetaanee ko wala mu jaay ko def ci boppam mais dafa ne na ko yóbbul sama yaay kon kooku ku naan bëggul mbokkam da ngay wax lu la neex lépp lu mu am yaayam mu ko gënal ak papam parce que tey ku leen xamoon bu yàgg xam leen li nga xam ni yaayam a ko gënal lépp changé na bu baax a baax. li ma koy wax mooy gàddaayoon na ay nitam sax dañ gàddaayoon mais comme ñu demoon gàddaay yëpp ñëwaat nañu nekkat benn comme nee nañ benn say moom kenn mënu ko damm. nañ ñëw bu mu bàyyi bu mu bu mu def sa année balance bu gisoon fin de saison jox ko combat ak ku mu mën a doon na ko jël ñëwal ñu àndaat ak yow gunge la ci li nga bëgg nga jaar sa place roi des arènes nga bëgg nga ñëw jaar ko ci kàttun yàlla man maa la ko promettre di la ko ñaan pour nga ñëw def Omar saaxoo mooy xale bu juddoo waaye nekk aussi benn xale banlieue xam nga tey bu juddoo ci banlieue bi dafay am luy nekk ci yow da ngay impulsif da ngay nekk xale boo xam ne da ngay bari jaar-jaar mais ci gàttal bi ma ko mën a wax mooy nit ku baax la nit ku baax la mooy man doy naa ci seede ndax jaar naa ak man foo xam ni ci laa xamee ni nit ku baax la ndax li ma la ciy jox rek ci benn anecdote bu yomb mooy tëgg naa fi combat bon bi muy bëri ak bombardier ñu dem ba ci biir làmb ji metti trop moo amoon tuuti problème sponsor yi ñu amoon ci wàllu làmb ji mu metti woon ci man en tant que promoteur en tant que investisseur bi ñu demee ba ci biir ma toog waxtaan ak moom en tant que gentleman en tant que frère xamal ko li nekk ci situation yi ni ko làmb ji toll na ci situation boo xam ni li ma ci njëkk tegal mooy demal xool ba xam ne lii jaadu na ngi ñëw te waxaale woon nañ ba d'accord ba signé kayit ba tënk mais la mu wàññi woon ci combat boobu ba ma dalee nekk ci làmb ba léegi mosuma gis mbër bu ko wàññi ci cachet loolu defal na ma ko te mënoon na ko ci bañ a fekk. bi mu ñàkkee roi des arènes bi nga xam ni wàññil na ma ci wàññi boo xam ni dem naa ba tëdd sax ma ni Badou Balla Gaye li mu wàññi ci kase bi Badou moo ko xañ couronne bi ma amoon ci metti metti trop. amoon ci lu ma metti ndax teraanga bi ma defaloon ci combat bi bu ma sañoon yàlla daf ko ci ay defal teraanga. mais nag loolu day wane nit ku baax la nit la koo xam ne bari nañ ak moom ay jaar-jaar mais ci gàttal daal li ci positif moo lu ci négatif. nit ku gëm yàlla la aussi gis nga tey situation yi Balla Gaye traversé c'est des moments difficiles moments difficiles yoo xam ni il faut nga nekk nit pour mun ko comprendre man ñu ngi échangeante vraiment situation yi mu nekk. te je dis pas en tant que mbër wala leneen en tant que nit ku nekk war nga ñaan Balla Gaye ci situation yi mu nekk mu jógee ci am de meilleures situation yoo xam ne nii même bu dul làmb mu am leneen loo xam ne ndax sa quelqu'un qui a propulsé notre sport national li ma koy wax rek mooy carrière mbër lu important la te yaakaar naa ne loolu chaque jour maa ngi ci waxtaan ak moom bu ko dara jaral mu forcé Balla Gaye s'il est cent pour cent s'il est ok à cent pour cent jafe na nag nit bu nekk cent pour cent mais su ko yàlla dimbalee ba mu nekk ci niveau bi mu soxla dafa bokk ci ñu war a téye lamb ji bon kii téye lamb yàlla rek ko xam mais Balla Gaye bu nekk top niveau yaakaar naa ni c' est quelqu'un qui fera des choses yu intéressantes dans la lutte Balla Gaye bokk na si mbër yi nga xam ne waxaale combat moo gën a gaaw gën a yomb lu ma vingt quatre heure boo ñëwee ni ko nangam la nangam nga may fay bu ngeen waxaalee d'accord du discuter xaalis Balla Gaye mun naa la wax benn anecdote am na benn combat bu ñu ko mës a fay xamul woon sax ñaata mooy 60 millions daf ma woo téléphone ni promoteur diw daf ma fay 60 millions 60 millions mooy ñaata ma ne ko xamoo 60 millions di ko tooñ mun ma 60 millions mooy mooy 50 ak ñaata maanaam buy compter ci 50 bi lay déparé ma ne ko 60 millions mooy 50 ak 10 boo ko boolee mooy nekk 60. mun waa d'accord loolu lañ ma fay coupé waat ma ni ma combat bi taxaw na nga xam ni amul problème mu xaalis amul problème mu discussion nañ ko ñaanal mu pare su paree njariñu lamb la ndax Balla Gaye adversaire yi ni mën naa nit képp ku ñu wooye ténor ci lamb ji actuellement moom moo la gën a nekk jeune moom il a 30 ans il est né en la kon mun na am na avenir bu mag a mag a mag ci laa l' avenir est devant lui sa avenir mu ngi sa kanam sa ñaari xarit sa ñaari doomu ndey mm. ñoo la loolu muy Aziz ak Baye Ndiaye waaw xam nga maa ngi leen di nuyu en passage. Mhm. ndax euh, Aziz suma mag la suma lépp la. dëgg la. bàyyi suma xaarit la. Mhm. suma lépp la. Mhm. yàlla ndogal ñu nekkee nit yu baax. gis nga télé boobu mu yox noonu. 2005 la ma toog sama yaay nekk Kër Massar ñuy seetaan télé tele bi amatuñ télé ba xam moo ko seetaanee. télé bi di déconné. waa tele bi yàqu. boobu commencé naa bëri grand combat maa ngi war a bëri ak maam Gour Diouf. ok non safurla Mame Gour Diouf waaw sama premier grand combat daal ci laa xam mhm. ne. sama yaay ne ma dama soxla télé aw ma télé. Mhm. ma nekk ci préparation yi ma woo Baye Balla ne ko Baye Balla ma ne ko dama bëgg dem bëri ci mbapat ma ne ma ah, loo ci jublu ma ne ko non dara dama bëgg a bëri rek parce que moment bi compétir laa bëgg quoi comme combat dafa yàgg baa ma dem sama yaay soxla woon télé ma mm-hmm. dem bëri tele bi mm-hmm. boo ko bàyyi ànd ak moom mu dem benn Mercedes mm-hmm. ñu dem ma bëri daan jël tournoi bi rek yóbbu tele bi ci guddi gi kan ma ci saasi ci waaw loolu mooy doon bëri bi waaw di xamal ne ñoom yàgg nañu dëgg la seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel dëgg la yàlla dogal na alhamdulilah maa ngi sant yàlla baax waaw lépp say lépp say bugguma sax ñuy dellu